salaamaaleykum mbokk yi suivre seen site internet bi di 24 active point com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam se ne moom lañ tuddee xam sa waay xam sa nag euh, ngeen ciy ànd ak man ma ciy a euh, tey nag sëriñ si tey nag sëñ Mamor Kéré moom lañ dalal sëñ Mamor Kéré bokk ci jànkati xas yu mag yi waaye laataa loolu tamit euh, dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo ba pare nuyoo askan bi koy seetaan ñu soog dugg ci waxtaan wi sëñ Mamor ñoo ngi lay nuyu waaleykum salaam soxna Mame Fatou ñu lay fay bu baax ñu ngi nuyu koo xam ne yaa ngi seetaan wala yaa ngi suivre seen bi seen bi di 24 actu li euh, dala ci seen directeur ak mboolem personnel bi fi liggéey yëpp ñu ngi leen nuyu ak mboolem ñi leen di seetaan seen auditeurs yi auditrices yëpp ñu ngi leen ñu ngi leen saare bu baax ci weeru mag wi ñi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa suñu borom defal ñu tawfeex nangu lépp itam ci barke Seydina Muhammad waaw sëñ Mamour xam nga tamit émission bi dañ na xam sa waay te buñ ne xam sa waay kenn ku nekk tamit la nga nekk dañuy daal di bëgg nga daal koy fésal ndax ñi nga xam si ne ñoo lay déglu mën a xam kan mooy diw ñu daal di bëgg nga daan ñuy ibbil ak émission bi ak njàngam xas ne pare ñu soog a tàmbali suñu waxtaan bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima أجابني خير باخ في خطابا كلي وراخا بمالي خاد احتابا عجابني خير باخ في خطابا لي وراخا بمالي خاد اختابا لوجه باخ مع العسل المبين لنا عرفت ولج والأمن ما خابا بقت الذي ليس ينفوني ولي بدلي ولي يحلد من كب سعابا إلى سواي لدى تنو بما معهم وبي يسافي إلهي دهر البابا قلوب من لم ينيبني على وجد فلا يلاقون ما راموا ولا البابا قلوب من لم ينيبني على وجد ولا يلاقون ما راموا ولا البابا ينخادني كل ما رام الكرام منن ولا مراخى بما لي خاد اعتابا ينخاد لي كل ما رام الكرام منن ولا مراخى بما لي خاد اعتابا subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin. jërëjëf sëñ Mamor Kairé ci njàng mu am solo moom mu daal di ubbee jataay bi waaye sëñ Mamor Kairé bëgg nañoo xam tamit boo ñu doon wax sëñ Mamor Kairé kan mooy sëñ Mamor Kairé. waaw ah, jërëjëf soxna Faty sëñ Mamor de xanaa ab taalibe la rek taalibe Sëriñ Tuubaa boo xam ne yaakaar naa ne ginnaaw bi lépp jàllee ab jullit la di taalibe Sëriñ Tuubaa yaroo fi màgge fi ah yàlla dogal mu bokk tam ci njabootu sëriñ Mor Kayre mi ànd na sëriñ Tuubaa eh, moo jur sama waajur ñu yaroo kon doon ay taalibe sëñ Tuubaa yaroo tam Tuubaa dëkk itam Tuubaa kooku mooy sëñ Maam Mor jërëjëf jaar-jaar yi de xanaa mooy jaar-jaar yi àdduna rek mooy àdduna moom ku mu ci mën a doon faaw am ngay jaar-jaar noonu ko waxe waaye ñun bi ñu ganee jamono di ay ndaw dañu yóbbu ci daara ji ñu jàng Alxuraan wala boog suñu daara waajur falan jàng Alxuraan ba mokkal Alxuraan jàng xam-xam ci daara sëñ ak ci jumaa ji yu mel noonu daal am na jaar-jaar bu dee yooyu def nañ ko mooy jàng naan Alxuraan ñu yar ñu jàngal ñu xam-xam loolu moom jaar-jaar yooyu jaar nañ ci waaw. bu dee aw moom sëñ Khadim Gueye lañ ko mas a def topp nii di ànd ak moom def jànkat ci sëñ Khadim Gueye lañ ko def waaye teewut am na jànkat bu njëkk ndax daana nettali lu bari te it xam na moom sëñ Khadim dina ko siifur. mooy suñ kër daan daara te bari ñu ay yu bari yu fa daa ñëw moom sëñ Xaadim bokkoon ci léeg-léeg bis yi booba njàng mi demeegu nii bis yi nga xam ne ay guddi alxames ak bis yu mel noonu danaa ñëw ci daayira yi oh, yaakaar naa ne booba ñun booba moon may ànd sëriñ Malick Fall booba sëñ Cheikh Mbaye sëriñ Mbacke Ndiaye ñu bari daal ñoo xam ne bu sëñ Xaadim saam yi jàng ñu dem di ko jàppale waaye bi ma demee ba nga xamee ne nekk naa ci daal ji ba tàmbali jàngale ginnaaw bi ma génn dem ndakaaru waaw tàmbali fa jàng métier naan métisserie yi laa fa yoroon di jaay xeeti ay raafoor ay wëñ xeet yooyu daal ak tiche bi ma demee ba jëmmi jamono nag ci laa ñëwaat Tuubaa ndax kenn kon dem loo xam ne mooy sa cër bi ma ñëwee itam suñu xaalis teewut di ma waat ne ma nag yàlla dogal na njàng mi yàlla dimbil na la ci daal boo ci góorgóorlu mën nga ci am dara ñuy ànd ci xasaay bi booba nag moom ca laa jóg di ànd ak moom guddi ak bëccëg dem naa ba nga xam ne kuréelam sax ay at yu bari maa ko jiite moom sëñ Xaadim Gueye ba tey sëñ Mamour ndax xam nañ la ci njàng mi euh, est-ce ci njàng ngi koy boole yeneen métier waaw njàng mi ah, ci laa waaye maa lu ma koy boole ndax léeg-léeg itam man sax su koy wax njàng mi métier la waaye da dem mam jatt la nga di ko bàyyi te ñu kenn ku ne jaar ci muy sëñ Xaadim moom jaar na ci téer ñu ni jaar ci commerce bi nu demee ba yëf yi jattuñu ci lañ dem ba jot gi mayatuñu ko waaye teewul lan dañ liggéey bàyyiwuñ ko ne man mama yi ma nekk nii am naay daara Alxuraan am naay tool itam di bay mbayum noor yi dama koy bay ak yeneen yeneen damay liggéey man waaw ci jàng sama liggéey waaw xam naa yaakaar naa bu mu juumul ay 99 wala 98 bi sëñ xaadim amee ay programme yu bari léeg-léeg moo ba ma ñëw mu yebal ma ci barab bu ma demee ñooñu xëy na ko daanaka de jàng yi jërëtu nga ñëw man ngay bàyyi Mamour di ci ñëw ci laa xam ne kon li may def nit ñi ñu ngi koy apprécié wu bi ma demee ba ay 2001 2002 2004 ci laa njëkk a def cassette cassette bi tam ñu bari apprécié wu mu neex bi ci des mooy ma xalaat ne kon man war na maa bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñi sëriñ bi doon wax ne antal karimu ana xadimu daxru dimu fii ka sana yi dama cee bokk kon war na maa war na maa yaatal ma keree sama yoonu bopp boo xam ne royuma ci kenn mën na maa tàmbali jàng rajas ba xëy asamaan set te duma jàng eeru kenn loolu moom yàlla dimbali na ma ci wax waa jàng fii ne nii jàngu nañ ci lu ma juróom benn kaset ak lu ma tey ñetti kilib yooyu xam naa ne daal waaw. waaw wolofal moom yaakaar naa ne man dama dama judd ci wolofal bokk <laughs> ndax ku xam sañ Mor mii sa jur sama waajur ci wolofal la ko ñu bari xamee donte daana bind arab mm-hmm. tey moo wax ne sëñ Tuubaa moo ko waxan muy wolofal moom moo ko bind moo ne alhamdulilahi ma santati borom bi ma amal bàmba mi mas la am morom daane suma ma salaamaan ne dal yoneen moom ñoñom ak saxaaba ya xeetam wa gën ba ma jógee ca ca jëkk Makka na namoon ak Madina ak Saam de ko ba la jëm Bàmba ma man kayre may wane xar baax yu yoneen ma sa def lu dul war a yógóoru tarifon lu yonante bi ma sa def rek man dinaa ko indi sama maam bi ci des mu wax ne ah sëriñ benn ko wan dellul sant aw nga yoonu jub bu jàqati baa ngay tiit xanaa daw ne am ngërëm daana ko nee na beneen ci yor yor lal moo ma jow mu jox ma këyit woowu mbindam laa ci fekk mbindum sëñ Tuubaa nee na mbindum sëñ Tuubaa moo ma soññiloo moo wax sax jub daal ne ku yëg lii mooy feeñu dëngam kon sëñ Tuubaa moo ko woyloo waaw wolofal moom bokk na ci li nga xam ne maanaam dañ ciy judd maanaam mu neex ci suñu tey te wolofal mooy mooy mooy arxuwaan ji rek mooy xasaayit xam nga arxuwaan suñu borom da ko wàccee waaye faaw ñu traduire ko nga mën a xam ne muy signifié parce que ñëpp dégguñu arab bu dee wala di itam lu ci baree bari itam fekk traduire ñu ko du am sens parce que mën ngay déglu xasaayit boo lii rek mu neex ci sa waaye boo ko dan xam fi sëñ bi dañ waxee loolu da ciy baax. déet man moom bindu ma wolofal maanaam bindu ma damay jël wolofal yi sëñ Mor Kayre doon bind lu mm-hmm. ci bari mu koy liiraat ak di ko binduluwaat mm-hmm. maanaam di ko jàng nit ñi du ko dégg. loolu daal laa fas yéene lool moom ci laa nekkat moom mais man këréew maay wala ko moom waaw ba tey maa ngi gëstu maa ngi gëstu li may gëstu mooy li sëñ Mor bind dafa doy sëkk parce que dafa bind ci fànn yëpp xam nga boo xoolee léeg-léeg damay dox ba yàgg ma gis ci téereem maanaam daa bind ci lépp maanaam ni nit war a comporté woo ak ni nit ab sëriñ naa war a mel ak ni mu rusaate war a mel ak mboolem loo xam ne yaa ngi koy xalaat ci chira wala lu mën doon ñoom sëñ sëñ Mor Kay da ko bind kon ma jàpp ne nekkal ci loolu jéem ko topp te jéem ko tasaare doy na sëkk ndax xam naa dinaa ci nekk ba jeexal ko te goo mën dinaa nekk ba ma dafay jóge te goo ko jeexal waaw man mosuma am astaxfurlaa mosuma am visa uh, uh, lu mel ni visa Europe de mosuma ko am mais yeneen i visa mas naa ko lu mel ni Gabon wala ay Cameroun ay visa yooyu daal yooyu mas naa am sama passeport musuma tànde tam dem fee pour ñaan ambassade visa musuma def musuma ko de déedéet. Euh, ah kay bien sûr parce que ñu nekk fële ay taalibe fa nekk te it buñ sañoon di gis seen i soppe parce que kaset boo génnee fii da nga fi xam ne leen ko envoyé. bi bi bi mooy amagu da nga def kaset dem yët leen ko yët ko kenn mu yóbbaale la ko ba demee ñu sotti ko fa di ko jaay ci la ñu bari dégg kaset di la woo man kaset bi ma njëkk jàng dama am ku naan Ablaye Cissé laa ko jox moo ko yóbbu eh, itali yóbbu ko France yóbbu ko Espagne sama mbokk yu bari ci lañ ko gisee xool photo bi ak numéro téléphone bi xam ne man la ci lañ ma woo téléphone mm-hmm. moo ko sasaare foofu mm-hmm. maanaam jot na jàngkat yi lii ñu def ñu yaatal ko bu baax a baax te yaatal gi nag moom li li sëriñ bi waxaan fépp la war doon ci àdduna bi xasaayit fépp lañu war a taxaw ci àdduna bi yëkkati ko loolu mooy suñu gis-gis te jàpp naa ne nit yi àdduna yi war nañoo xalaat ne ñun demuñu fenn dafa dem di fa toog ndax sëriñ bi defal nañu lu faw xaloolu fépp fu ñu dem itam maanaam man na ne maanaam miss soñu fa yóbbu dañuy dem bu liggéey ba mate ñu wàññeeku muy dem jàngi xasaayit bégal taalibe sëñ Tuubaa yi wala julli dafa ne mën a wàññeeku loolu rek la waaw bien sûr am na ñu bari am na bis sax ñu tàndee benn bis boo xam ne dama soxla woon Italie mais bi ma demee ba dernier moment tam mujjul sotti ndax dem naa dañ ma bindaleen euh, euh, yaakaar naa ma bindaleen invitation bi invitation bi ñëwee ñu yóbbu ak kii ñu war ko ñeen dafa am erreur nga xam dem sax boole kii ak yooyu parce que bi mu demee ba ambassade lijjanti ko jotuma dem ñu après ñu ne lay kii mujj ko annulé mujj ma dem waaw. li xam nga loolu dana ma saam parce que bi defuma ko waaye teewut yàlla dogal na man damay nit koo xam ne xaw na ma ubbeeku tut ci àdduna damay am ay gan sax yu jóge Italie ay tubaab di ñëw sama kër gi man chaque jour damay am ay gan mën naa la woon sama téléphone boo xoolee sama téléphone da gis yu ay may ànd ak tubaab yu bëri parce que ma am taalibe yoo xam ne danoo nekk fii sama daara ji tubaab yi ñëw foofu danoo dem ba gis kin lay gis nga neex leen léeg-léeg vacances ñëw fii am fi donte trois jours ñëw ma yóbbu leen ci jumaa jeeg yeneen ak yeneen barab ñu yow sama kër fanaan suñ xëyee dem kon xam nga yooyu moo ko toppan peut-être mën na ma am visa mais nag mosuguma leen di proposé yooyu ne bëgg naa ko wala yeneen yi mos ay maagalu tubaab yëpp damay am gan ñu jóge Italie ñëw fii ay tubaab yu weex waaw tuubal naa fi tam ay tubaab yu bari yoo xam ne man maa leen tuubal personnellement waaw waaw tuubal naa dugal naa ci diine sam yu bari xanaa métti rek maanaam métti na trop ndax ni nga koy dunde mooy maanaam ni ko ñëpp di dunde yow koo xam ne daanaka sa yëngu yëpp ci mboola lay doon ñu tere luy xeeti mboola ñu ko éviter daal yaakaar naa ne loolu ku ne xam na ne métti na waaye ne li tax itam du métti mooy ñu sant ko yàlla ndax ab jullit warta jàmbat ndax li son borom di ne lépp lu ma teg doomu aadama na ma sant loolu moo tax ñun faaw ci sant rek lay dëkk ndax seexul xatim radiyallahu anhu mi nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ëllëg ah yaakaar naa ne coono bu ne daj ko ko te teewut ci cant rek la la mujje kon nag loolu la ñuy gëm ne lii fi jaar itam lu fi jaar la waaye ñoo ngi ñaan ci barke Serigne Touba barke Seydina Mohamed barke weeru mag wi suñ borom génne ko fi ndax feek jógu fi itam activité àdduna bépp lay yàq parce que fii ni économiste àdduna bi waxuma la sax jànkadi mais économiste yu bari lépp lépp daanaka dafa dafa dafa dafa paralysé daal nga xam ne boo xoolee ñi doon am kenn ku ne koo doon am fukk tey mënoo am ñaar kon loolu yaakaar naa ne métti na daal waxuma la nag jànkat yi waaye métti na ci jànkat yi parce que ñoom comme ñoom ci mbooloo rek la ñuy dox te mbooloo moom mënta tam te xamuñu kañ lay moom faw ñun jànkat yi moom duñ def lu toog di ñaan ngir yàlla jële ko waaw loolu laa ñu ci wax waaw waaw bari naa jàng yu bari yu war a jàng ay dëkk yu bari mën na lim cité yu bari ay Mbos Kër Maguèye ay Kër Mali bari na dëkk yu bari mën na lim Ngémé dëkk yu baree bari yoo xam ne danga ko war na jàng Daaru Salaam Darma dëkk yu bare bari daal yoo xam ne war nga leen na jàngale ñu joxoon leen seen avance waaye am na ci ñoo xam ne laajuñu la ko am na ñoo xam ne dañoo bàyyi ba déwén ko am ñoo xam tam dañ la garde ko ba saa su jëmi jamono buñ ko mën a jàpp-jàpp mais amul kenn koo xam ne moom laaj na la ci avance moom ndax moom wax na am na ñoo xam ne soññee nañ ne la léegi mën nga ko téye ba yi jeex ñu jàpp bis am ñoo xam ne moom dañ ne nañuy renvoyé ba déwén. waaw am na ñoo xam ne programme yi may wax yëpp ñëpp ma kenn ku ne am na loolu la joxoon ndax eh, jàng boo ñëwee di ko wax ngir nga sàmm sa kàddu dëgëral sa kii ba nga xam ne contrat lay doon daan. waa wax dëgg yàlla man de amuma ci benn problème parce que ñi ma dañ ñi ma jàngal ñëpp day amul kenn ku ma ci woo wax ma ci dara maanaam ku ñëpp dañ ma woo ne ma xam na ni mu demee dañuy renvoyé ba déwén am ci ñoo xam dañ ne ma dañuy bàyyi ba yëfi saa soo xamee ne dem nañ ba man ko jàpp ñu jàpp loolu rek lan ma wax mais nit ñëwut na ma lii wala nangam parce que xam nañ ne lii du coobare kenn coobare yàlla la kenn indiwu fi tam yàlla ko fi indi moo ko fi jëlee tam ji la waaw comme ni ko bis yëpp yi fi jaar yëpp naa boo xoolee bëtti dem rek mën naa ne bisu sëñ soñ bu moo mujj màggali daal mu si màggal amul dajale daje mbooloo ndax comme yooyu yëpp dañ koy lànk dañ koy bañ ñu sàmmonte ak yooyu sàrt yooyu defuñu ko ngir waaye dañ koy def ngir ñii koy diglee damaa yaakaar li tax ñu koy diglee suñu wér-gi-yaram rek lañ ci jublu ak xeex loo xam ne tey dañuy xeex jàngoor yi ngir mu jóge fi moo tax bis bi ñu daa def ni ñu ko amele mooy dañoo jël bis bi tey ah, wàcc ci arxaan daara yu bari même taalibe yi nekkee bitim réew ak ñu nekk euh, euh, Dakar Mbour Sanjara salu Touba tayf ñoom ñëpp bi ñu jàngee kenn kon seeni lim ba jox ñu ko ak yi daara yenn yi jàng fi sànq bi may génn daal wax na ma juróom benn fukki ak ñett yoo xam ne jàng nañu ko tey ndax ci kër gi tey rek ñetti daara yi wër foofu kenn ku ne ñëw na ko ci biir daara ju ñu jàng ci kër gi jàng nañ fukki amil ak ñaar waaw tey jii ci biir kër gi jàng nañ ak ñaar teewut tam dañuy togg benn yi ñu daa def wàññiwuñ ci lu bari dañ koo defar buñ ko defaree ba noppi fas yéene incha allahu rabbi daara yi jige foofu yëpp ah, ñu ñu jël ko yóbbu ko incha allah loolu lañ fas yéene waaw waa sama relation ak jànkat yi yaakaar naa ne yaatu na ndax jànkat yi ci ëpp dana daanaka boo gisee ñu bari dana la jox worma bi ngir sëñ Tuubaa worma ngir xasaay bi damay dem ba dama naan lebaluma leen loolu waaye mboolem jànkat yi la dala ci sëriñ Fallou Ndiaye ndax sëñ Fallou Ndiaye may wax sama sama mbokk la maam la ci man noonu la amee ci man confiance am ci man yaakaar ku mel ni sëriñ Xaarim Gueye moom jëlee la naa ko ndax day sama mag di sama booleem jànkat yi des ndax nee naa la léegi ku mel ne sëñ Abdoulaye Seck ak jànkat yu bari sëñ bàcc ñu baree bari ak sëñ Mara sëñ jànkat yi ngay dëgg yëpp samay xarit lañ yoo xam ne man ak ñoom benn lan waaye nag dëgg-dëgg xarit boo xam ne tey jii yàlla da laa boole moom mooy sëriñ Cheikhouna nga xam ne àdduna dañ ma xamee ak moom waaw mooy sama xarit boo xam ne ñoom yàlla ñu boole mais jànkat yëpp man amuma ñoom am am ak ñoom benn benn waaw waaw la yàlla dogal waaw waaw ñi ngi ñi ñi ci góor góor man rawatina man sama classe gi nga xam ne ñi ni àndal bit bu set dama leen di wax ñu xool ci doxin wi nuy dox ndax ñun bi ñuy ànd sëñ Xarim Gueye dan nañ xool doxin wi muy dox ñu xool fa mu teg tànkam fa mu teg tànkam ñu teg fa suñu tànk ba xañ ne cër yooyu yëpp ñu am yàlla mi ngi ko jaarale ci moom waaye sunu njàmbaar ak sunu bëgg-bëgg moon ko may loolu moo waral jàngat yi may ànd lépp loolu laa leen di wax mbir boo ci duggee na nga xam ne Sëriñ Tuubaa li ci dugal daree adduna dugalu la ci mbooloo mi ak lu mu bari bari bari yàgg-yàgg dañ lay wan ginnaaw lin naan jànkat bu màgget say soppee ma say soppe màgget te looy def lu ne yàgg-yàgg da ko bàyyi ñeneen di ko def kon nag diiraa bi nga koy def nga rafetal mbir mi bu baax a baax ba nga xam ne bu ëllëgee si biir maanaam dina xam ne yaa fi defeen lii ndax jànkat yi fi jaaran tey ñu bare bari mën naa te ñi mag ñi tey jii ñëpp dem nan waaye am na nit ñu leen di roy kon nag loolu lan bëgg ñun tam buñ fi jóge tey maanaam def fi loo xam ne tey bu ëllëgee ndaw yi ñu bu ñëwee dina xam ne lii yaa ko def rawate ni ñi nga àndal chaque jour maa ngi leen ci ñu fonk xas lii bu baax ah, xam fi ñu ko war a defee ah, xam ñin ko war a defal ba noppi bëgg seen bopp itam bu baax a baax ba noppi fonk seen liggéey loolu chaque jour loolu laa leen di wax. Ah, ba tey tamit eh, sëñ mamoor bëgg nañoo xam tamit eh, relation ak ñi nga xam si ne ñoo di politiciens yi naka la daal demee. waaw politiciens yi itam am naa ci ay ay relation yu baree bari ndax man yaakaar naa. 2012 lu mel ni élection am naa sama benn mag bu ren politique dem ba ci biir yàlla dogal am lu ko dal ci biir politique bi mu ñëw ci man yaakaar ma ci ne ma naa ko àggaleel muy 2012 mu ànd ak ku naan Diop si ma ànd ak moom ñu àggale liggéey boobu tiiran booboo am na politiciens yu bari yu ma jaax sol ci dëkk bi ndax bu dul dara doomi dëkk bi nga muy maire bi wala muy muy muy mboolem ñuy politique ci dëkk bi ñëpp laa jaxasool ndax am na ma ñoom relation boo xam ne relation bu sincère la boo xam ne sëñ Tuubaa rek a tax itam loolu moom am naa jaaxasoo na mag ñu bari même fii Sénégal ak ak ñeneen ñi nekk Dakar ak feneen ak feneen ñu am na ñu bari bari ñu ma jaaxasoo bu baax a baax macha allah ba tey sëñ Mamour di ma diggee ci dikkee ci wolofal bi tamit eh, gis naa ne wolofalu soxna jaara boo xam si ne moom tamit yaa ngi ko génnee ci eh, màggalu soxna jaara gi muy ci poroxaan bi mu nekk wolofal boo xam si ne bu am solo la bëgg naa tamit daan ñu koy dikkalaatal ci biir jataay bi laataa ñuy tëj jataay bi wolofal soxna jaara dañ koy yëkkati wala buñ ko di la comme comme aw te xam naa ne yow yaakaaruma na <laughs> da nga mën a aw waaw wolofal soxna jaara da dëgg la am na solo mais aw lañ ko defan ci soxna jaar ci wàccaayu màggal poroxaan gi jàll damay ragal nag boo ko bëggee yëkkati te ànd ak mbooloo goo mën goo mën a yow da nga ko mën a woo léegi léegi ma def ko en suivre rek bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima yaa xaadima almuxtaaru laa tansa saxbo faman yamsamut falmaat umatul maato ملكت برب الموح إلى الموج واليمين بمته الذي أنسى أسل فلك كلامي مرامي واجاتي لربي توجعت بعمد وسكر واخ ولي كان بالسكم مرادي كوني عبد ربي خديم من واتب بسكر واللبس عسمي مساياك يا كل لدى الكل خجلا ولكنها جلت عن السير والنسم مقامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتعر عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه سلام من لو الأمر كاللكم محمد المخروف ما ومانع وبالنس مخصوص مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا لكل داء مبيع ومبخوص إلى المرب والوجم مديء جلا عنا du janna muallilun maliun wa maasumun min annaasi walwaxmi madinatu ilmin mor tajan minnatun lana jëriun wa munjin min sunubi wa min sulmi ما لو أني بن نبي كل فاسد وسرت به خبدا خديما بالعمي من الله رب الأرض سيبقي صلاته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 liggéey bi itam nii ngeen koy defe nii rek nii rek la yaakaar naa ne yéen a ngi yaatal bokk ngeen ci yi nga xam ne ni may wax mooy yaatal liggéey bi ndax xaside yi buñ koy jàng itam buñ sañan plateau yu mel ni di adduna bi gën di ko siif di gën a xam ndax bokk na ci liy li yokk ab jàngkat plateau yu mel ni kon nag yéen itam yàlla seen euh, liggéey bi gën a yaatu ba li ngeen ci yéene yëpp ngeen am ci lu kaw njot loolu ñoo ngi leen ko ñaanal baax ndax mbooleem si yi fi jóg yépp wala seen yi fi am yëpp ci yu mel ni rek la jaar mën naa dem ba am ba ngeen ci am lu kawe njot waaw kon nag yàlla na ko sëriñ bi defe defele noonu ngeen gën a yaatal lépp nga xam ne yaakaar na ni yéen bu ngeen amee ay télévision wala yeneen ñi liggéeyal sëriñ bi wala ñiy yëngu ci lu baax danañ ci fees bu baax a baax te loolu dafa mat a am solo dafa mat a yaatal daal te yéen ngi ci bay seen wax kon nag yàlla leen ci sëriñ bi jàppale bu baax a baax di leen sant di leen ñaanal bu baax ci barke weeru mag wi ah, ci barke mo weeru ramadan wi liñ ciy ñaan yëpp yàlla nangu ñaan yi faj ajo yëpp ñu ngi sant itam bu baax mboolem ko xam ne yaa ngi doon seetaan li 24 actu doon siifur euh, émission bi rawatina ñun baaxoo di àndal ñëpp ak suñu bokk yi bàyyi ca kër ga ak mboolem taalibe yi nga xam ne dañoo aju ci ko sëñ Mor ñëpp ak taalibe sëñ Tuubaa yëpp ñu ngi leen di saare bu baax te di leen sant ci safoo gi yëpp ak jàpp gi ndax nit ñi ñu ngi lay defal taraanga ju ne ngir xasaayit man lu ma am xasaayit daanaka ma ko may bari na lu bëree bëri loo lu ma am loo xam ne xasaay te mu ko defal kon nag man bokk naa ci ñi war a sant bu baax a baax kon nag ñu ngi sant bopp yëpp di leen sant bu baax ci yaatal gi di di bëgg tam di am kontaan bu baax ci lii ngeen ñu defal ndax lii bokk na ci lii yaatu suñu liggéey ñu ngi leen ci sant bu baax a baax waaw waaw kay jërëjëf sëñ Mamor Kayre la woon dégg ngeen ko ni mu daal di waxee 24actu moom nii la rek dafay daal di yaatal ndax xam nañ ne tamit ñi liggéeyal Serigne Touba ci lañ bokk ba a dalaloon moom it dégg ngeen ko tamit ni mu àddoo ci question yi nga xam si tamit euh, indi nañ ko mu daal ci tontu ci euh, tontu bu leer naa ñi waaye tamit daal ñu ci indil ci njàngum xas da xam xamante tamit eh, dégg ngeen ko macha allah ku ko dégg tamit xam ne ne buñ limee jànkat yu mag yi dinañ ko ci boole mu nekk nag émission boo xam si ne eh, am na solo lool kon yéen ñi koy topp ci 24actu point com eh, ngeen ci ci ànd ak soxna Mame Fatou Kébé nii rek lay daal di demee saa su ne di leen sant bu baax di leen gërëm di sant ñi nga xam si ne ñoo ñu topp ci 24actu point com di sant tamit suñ cameraman di leen jox dox daje ci beneen émission beneen jotaayu xam sa waay